xalaat daañu weccoo ay xalaat léeg-léeg sax ñu wax ba dënn yu tàng waaye nag li nga xam ne moom la bokk muy réew mi ak démocratie bi ak institution yi ah loolu waruñ ko yàq te kenn warul dugg si lu koy yàq maa ngi santaat di gërëmaat kilifa yi suñu réew nag yàlla moo ñu baaxee loolu tax na fu mbir yi jaxasoo ba xel yépp tiit kilifa yooyu daañu jóg waxtaan nag kenn ku ne waxtaan ak ñu yor nguur gi waxtaan ak ñu yor opposition waxtaan ak ñi nga xam ne xëy na ñoo yëkkati mbir mi ngir ñu xool ci yan anam lañuy ñuy ba jàmm mën a dox leneen li itam xam naa ni am na ci réew mi ay jafe-jafe ci wàllu koom ndax adduna bi yépp moo am jafe-jafe yi rawatina réew yii di réew Afrique ba ci senegal gii jafe-jafe yooyu nag li koy yokk depuis at a ngi nii mooy mbas mi mbas mi indi na ay gàllankoor ci njaboot gi ci économie bi ci liggéey ba kër këru liggéeyukaay yi ba ci ñor diine bi at a ngi nii kenn mënul dox li nga xam ne noonu la noonu lañ doon doxalee diine yi ci biir réew mi loolu it laal na ay këru liggéeyukaay yu bare bare ba tax ñenn ñu ñàkk nañu seen liggéey ci gàttal daal jafe-jafe yi gën naa tar depuis bi nga xamante ne lii mooy mbas mi dugg na ci réew mi moo tax may wax askan wi ni jafe-jafe yooyu nga xam ne yokku na ba ñu koy yëg ci biir kër yi di ko yëg ci quartier yi di ko yëg ci banlieue bi yëg naa ko dégg naa it lii nga xam ne mooy façon bi nga xam ne moom lañu ko wone naam bi mu tàmbalee xam ngeen ne ci fàttali yëkkati woon naa benn fonds bu ñu tuddee force covid 19 fonds boobu junni milliard atum daaw def nañ ko si ngir mu ñëw indi ndimbal si askan wi yéen a ngi fàttaliku ceeb yi ñu fi joxe woon nag lépp lu ñu indi woon ngir jàppale njaboot gi indi itam ay ndimbal ci entreprise yi pour ñu bañ a dindil borom liggéey yi indi ay ndimbal ba ci suñu doom yi nekk bitim réew ba ci artistes yi waaye xam naa ni loolu ñu defoon yépp ba fii doyul ndax jafe-jafe yaa ngi fi ba tey di gën a tar ci wàllu financement ndaw ñi juróom-benn fukki milliards DER joxe na ko waxtu wi may wax a yéen finance lu ëpp téeméeri junni ak fukk ak juróom ci ay GIE ak association ñeent fukki milliards ñu ngi koy def at bu ne ci wàllu formation ndaw ñi utal leen métier moo xam ne apprenti lañu wala ay métier yoo xam ne danañ leen ci former suñu pare ñu ubbil leen ay bërëbu liggéeykaay financé leen waaye loolu yëpp gis naa ne doyul moo tax nag maa ngi wax ak yéen ndaw réew mi di xamal ni dégg naa bu baax seen yuuxu dégg naa bu baax seen mar ndax xam naa ni chômage bi metti na xam naa ni it ah seen xalaat yépp mooy noo leen di def ba tekki noo leen di def ba jàppale seen njaboot jàppale seen réew noo leen di def ba am xëy ndax ndaw boo gis bëgg na tekki jàppale boppam jàppale njabootam waaye jàppale réewam loolu nag moo waral ma bëgg ginnaaw li fi weesu yépp xamal leen ne dinaa def doxalin bu bees ci gouvernement bi ak budget bi ni ñu ko doon doxalee ndax tabax naam ay yoon ay autoroute yépp am na solo tabax yi bërëbu fajukaay bërëbu jàngale am na solo waaye war nañu toppatoowaat lu ëpp liñ doon def ndaw ñi loolu jàngat la boo xam ne la kuliyaalin ñu indi doxalin yu bees ci loolu kon nag yéen ndaw Sénégal fekkee rek mbirum seen avenir la mbirum ni ñu leen jàppale ba ngeen tekki da ngeen xam ne dinañu yokkaat si lu bare bare bare danaa def programme bu bees boo xam ne dina toll si ñetti téeméeri milliards ci ñetti at yi muy téeméeri milliards at mu ne lu ñoo fekk lépp lu ñu daan def ngir ñu mën leen kuñ si formé rek ubbil la nga financé la sa liggéey noo koy doxalee loolu te itam ñu fexe ba circuit yi ak procédure yi du nekk yu jafe lool xam naa ni itam couvre-feu bi indi na gàllankoor yu bëri si yenn liggéey yi ñu mel ni borom restaurant yi ñu yor hôtel yi ñu yor liggéeyu guddi yi ñu si bare bare bare mbir mi gàllankoor na la waaye nag boo gisee ñu def couvre-feu wàllu mbas mi dañu ne woon nañu sàmm dundu doomu aadama yi naam koom bi am na solo waaye ku gis li faatu Sénégal bu ñu doxalewuloon ni amaan na mu gën fi metti lool ndax gis ngeen réew ñu ëpp doole fuuf réew ñu ëpp doole ci àdduna bi tey ëpp na juróom benn téeméeri junni ci ay doomu aadama yu fa génn àdduna loolu nag jàpp naa ne xejul ci suñu réew ma waraloon metti di couvre-feu yi waaye couvre-feu yooyu nag dinañ ko wàññi bés ni ki tey lii nga xam ne moo amoon ci région Ndakaaru ak région bu Thiès nga xam ne ñoom li ëpp ci liggéey ak këru liggéeyukaay yi ci ñaari région yooyu la naam bu fekkee sax ne li ëpp aussi si jàngoro bi foofu la ne couvre-feu bi léegi dinañ ko toxal 9 si ci guddi ba muy jëm 5h du matin loolu dina tax guddi gi ah yenn activités yi dana mën a jógaat kon mbokk yi li ma bëgg a waxaat mooy suñu réew mii ak réew boo gis léeg-léeg bu jafe-jafe bu mag amee lay tax réew ma mënal boppam mooy nit ñi boole seen bopp donte am nañu ay jafe-jafe seen biir ndax jafe-jafe du ñàkk ci àdduna boole seen bopp ba nga xam ne lii di li ñu bokk muy sunu gaal ñu fexe ba dara du ko yàq ndax réew mi nekkul rek lu tëb am ay junni junni atangi fi bokk yi bokk deret bokk diine diine yaa ngi fi nekk ci jàmm muy diine lislaam diine chrétien ki yeneen i diine protestant yi ak ñi nga xam ne sax ay animiste lañu ku ne nekk ci li nga ne waaye terewul ñu bokk ndey bokk bàyyi te loolu Sénégal àdduna bi yëpp moo ko nawee Sénégal loolu nag dama jàpp ne waruñ ko yàq te man de sama kem kàttan fii ak maa ngi nekk ci bopp réew mi danaa def loo xam ne day dëgëral démocratie senegal day dëgëral souveraineté bu senegal day dëgëral itam jàmmoo ak mbokkoo ci diggante nit ñi mbokku Sénégal ci bés bi tey di juróom-ñetti fan ci weeru mars ngeen xam ne moom lañu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi yépp maa ngi ñaan waa réew mi kenn ku ne fu mënta féete ne dox ngir jàmm ji gën a sax ngir dal gën a am muy loo xam ne dañ koy def ngir jagleel ko suñu jigéenu réew maa ngi jeexal ci di santaat di gërëmaat ginnaaw ma sant suñu borom kilifa diine yi kilifa aada yi ñu nekk ci biir réew mi banqaas yépp yi nga xam ne dox nañu woote nañu te dara taxul lu dul jàmm am ci Sénégal Sénégal continuer yoon bi nga xam ne fi ne kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan ci jàmm